merci beaucoup en fait xam nga ne affaire dafa yàgg cest à bu ñu ko gisee ci situation c'est un processus xam nga décalage c'est comme on dit comme disent les Ivoiriens quand tu crédit pour euh, pour payer crédit c'est c'est pareil da ngay jël ci année bi pour compléter finalement le décalage là il est là mais première solution en fait en tout cas une solution déjà au niveau politique gis nga CROUS les tous les CROUS sont politisés soo xoolee les CROUS mais xoolal les directeurs de CROUS ñu leen di ñu leen di c'est les bases ça il faut aussi ah, nañ ko xool parce que c'est des bases politiques loolu kese la cest à que politique boobu ñuy wax en accusant les autres de politique mais foofu c'est que de politique bu fekkee yéen da ngeen di euh, nekk pour euh, enseignants yi est-ce que loolu tamit boo yéen seen compétence la ngeen wax ci nomination non non en fait ce qu'on est en train non non non ce que non non mais ça c'est l'université c'est-à-dire que soo xoolee les recteurs les recteurs maintenant mais je vous l'université encore avec grand U c'est-à-dire que y a le campus pédagogique le campus social soo xoolee les recteurs c'est un appel à candidature on les compétences suñu dañuy def appel à candidature Sénégalais yi quel soit fu ñu nekk seen compétence nañu compétir ñu def appel ñu def benn classement après ñu recruter mais pourquoi mënuñ ko def ci kii bi comme ça les gens ne seront pas tentés pour des raisons politiques cest à il faut que ñu bàyyi loolu nga xam ni euh, euh, au niveau des COUD et des CROUS sénégalais yi compétents et ça c'est valable au niveau de tout hein c'est vrai le président il a le dernier mot mais quand même sur le CROUS on peut laisser déconnecter suñ ko deful parce que lu social va toujours empiéter sur la pédagogie xam nga ça ça mënul loolu tout le monde on ne va pas tout dire mais tous les euh, xam nañu li xaw mais ñun lu ñu mën a wax mooy que enseignement supérieur le SAES, le président nous a au mois de 2022. Il a pris des décisions importantes, mais qui n'ont pas été mises en œuvre. Le SAES a alerté plusieurs fois. Il faut que nous talk, Mais nous, nous talk. mais c'est ça le problème jël na ay décision ñun ñoom ñëpp woon foofu. Ah, c'est ministre bi dem nee na nee na exécuté nañ presque plus de cinquante pour cent. ministre bi xam nga vraiment. Ah, je moom moo wax de. moi je voudrais dire. c'est pas vrai ce je viens tout récemment de Ziguinchor j'ai été à l'université de Ziguinchor kii li muy wax ni jarul sa photo je suis un témoin oculaire ça n'a pas été fait ce qu'il a dit c'est pas vrai. tout à l'heure moi j'ai dit vraiment pour rester poli c'est autorité. Mm-hmm. xam nga on va dire ça comme ah, ça. xëy na non non non du dëgg ñoo ko déggandoo mais vraiment je pense que il doit peut-être on va dire que il est il n'a pas été bien informé on va le dire comme ça.

soo ñëwee ci kër gi daa xam ne ñuy seen menu lu ñu il faut nga xoolaat il faut te t'imprégner. donc li ma. léegi bon beneen bi ma bu ma si bu ma si bëgg moom mooy euh, tamit nee na ministre bi dem moom mooy wax euh, bon dañuy jël référence yu suprême parce que lu mu wax ni bon ça fait ça autorité ça fait d'autorité mhm. euh, que de cinquante pour cent suñu nga xamante ñooy enseignants yi achat mu ngi ko doon wax cinquante pour cent si ñu enseignants yi que soit syndicat yi seen seen ci ci syndicat yi ay politi dañuy politique mhm. est-ce que jàppoo ni dans ce sens que euh, le syndicat yi di dafay jàppoo ni mu dafay am conflit d'intérêt mais vous pensez que man mi jàkkaarloo damay politique. vous vous connaissez non vous me connaissez. est-ce que vous avez suivi notre parcours xam ngeen SAES. ah non, je vous dis en non xam nga justement c'est dans les stéréotypes et les caricatures je vous dis nous on ne fait pas de politique. dans ce qu'on absolument rien le SAES est un syndicat autonome cest à avant vous avez fait de la politique doo leen dugg ci bureau national du SAES c' est de impossible moom mi di wax kay moom mooy politique parce que <laughs> mais il y a les enseignants ils sont ils sont allés voir le président il y a quelques jours c'est réseau ak d' autres personnes aussi c'est-à-dire que il faut aussi comprendre une chose dans nos structures syndicales il pas de politique SAES c'est l'un des syndicats les plus démocratiques au Sénégal il n'y a pas de politique kon moom. non mais xam nga mën nga mën na ko wax li ko parce que lii lii en fait xam nga tamante dëmm rek la xam nga mbir mi loolu kese la lu muy jëf foofu dafa noonu loolu la ñuy jëfee moom il sait bien que suñu jàkkaarloo du ma wax si bët mënu ma wax loolu xam nga c'est très bien qu'on fait pas la politique le président la si ñëpp xam nañ ko on est très respectueux des institutions mais on sur les principes ça sur le sens je le garantis amuñu ñu fi ne Malick Fall wax na ko léegi fii. ñu wax na tous autant non je ne dis je ne non je parle du SAES de la structure. Ah. maintenant les enseignants eux-mêmes. Ah. individuellement ils sont des citoyens sénégalais su ñu waxee lool donc le mi en commencer par le ministre su fekkee loolu ngeen wax donc il n'a pas le droit de il est il est pas du parti pouvoir le, le ministre qui est un enseignant donc enlevez-lui ce droit-là on continue vous allez enlever à tous les parce que enseignants boo ci gis ñoom ils sont dans mais je la structure bi boot ñëpp. sur le discours il est apolitique il faut que ñu mhm. distinguer mhm. les enseignants les positions personnelles qu'ils peuvent avoir dans le parti politique et ñun la position de principe qu'on a dans un syndicat en regroupant tous les enseignants de divers bords politiques mais loolu aussi Célestin mën na influer ci lu nga xamante ne moom mooy fonctionnement wu syndicat bi aussi non ça n'influe pas ci ñun je vous dis j'assiste j'insiste ça influe toutes les suñu fekkoon politique moo ñu taxoon jóg am na affaire yi nga xam ne déggoon nañ ko fi ci wàllu ay mandat yoon doon déggu leen ci on est resté sur le principe on reste sur nos déclarations c'est sur le principe la ñu des parce que aussi il faut que loolu dama ko bëgg a leeral ci ñëpp pour SAES SAES mm-hmm. e on n'est pas politique d'accord ça je persiste et il faut que ñu comprendre ko c'est un syndicat autonome démocratique apolitique et nous nous en glorifions maintenant enseignant bu nekk il a le droit en tant que sénégalais mu nekk voilà